euh, l'élite intellectuelle était aux côtés du mouvement ouvrier gis nga mm -hmm. première internationale ouvrière boobu ñu créé à Londres mm -hmm. le 28 septembre 1864 c'est Karl Marx de sa propre main moom mu bind le manifeste de la première buñ delloosee ci débat bi dinaa wane ne xañ nañu ko actuellement nii. la deuxième internationale a été créée aussi en France. Mm-hmm. avec la section française la SFIO section internationale française de l'internationale ouvrière. Mm-hmm. boobu it Jules Guesde. Mm-hmm. socialiste la bu ñu xam. Jean Jaurès ak Engels moo jóge Allemagne ñëw. ñu encadrer le mouvement ouvrier ñu créer mhm. euh, la deuxième internationale ouvrière la troisième a été créée au mhm. courant de, du triomphe de de de la révolution bolchevique mhm. avec Lénine donc mouvement ouvrier mouvement syndical. Mhm. dafa mas a ànd ak l'élite intellectuelle engagé ñu encadré leen ñu jàppale leen tey jii ñu nekk ci quatrième révolution industrielle mhm. tout est mhm. même le mouvement politique a des difficultés aucun parti politique ne gagne plus des élections donc les organisations syndicales aussi ont les mêmes difficultés parce que nous sommes à la croisée des chemins te buñ ca eggee dinañ toj lu tax jafe-jafe yi am absolument en tout cas ni euh, a xam jafe-jafe yi dëggantaan yi nekk ci euh, yooyu leeg syndicat alors góor mi ngi noonu laaj bi rek day ñëw euh, ndax dañ leen ko séddale muy doon syndicat yi nekkatuñu vraiment euh, li ñu nekkoon démb cette mobilisation cette force bi ñu xamee woon daanaka fourage daal di xëddéem alors aujourd'hui yow naka ngay jàngatee cette situation voilà nim kay Mohamed ñu ngi lay nuyu di la di la ziar bu wax mm-hmm. ku nekk sa xaat ngay joxe mm-hmm. moo tax fi mm-hmm. mais li ma ci jàpp mooy am na ci loo xam ne ñun la. mooy mhm. émiettement bi ñuy créer mhm. chaque jour am na syndicat buy judd. chaque jour am na centrale buy judd. Mhm. yëkkatil micro bi am na centrale buy judd am ni ko Camara Cheikh waxee noonu ci wàllu politique. chaque jour am na parti politique buy judd. loolu dafay dem ba dalay affaiblir te doo ci rendre compte te nag lépp loo amatul force. doo ko mën a défendre comme ni nga ko war te défense boobu bu manqué rek. mu am ñu ñu laaj. Mm-hmm. lenn li nag état la. Mm-hmm. ndax bëgg-bëggu liggéeykat yi. Mm-hmm. mooy dañuy topp ci ginnaaw syndicat di nga wax seeni soxla. waaye lañ ci séentu muy un résultat. surtout positif. absolument état nag da def loo travail dañ lay pouse ba nga def action. état ñëw na la nungul naa li nga wax yëpp. te du la ci defal tous. signé la ay accord te du am benn suivi. te duñ ko respecté. duñ ko respecté. combat la pour gën la xajale sa population la. Mm-hmm. bu dee population bi travailleur yooyu ànd ak yow. Mm-hmm. gis nañu demoon nañu grève bu dul benn du ñaar. Mm-hmm. mais ay signature rek la ñuy am te du am benn suivi. ñoo li tax amul suivi am na rigueur boo waroon a am te amoo ko. kon yow mii dafa mel ni da ngay bokk ci ñuy lekk bong bong. accusation boobu nag nga xam ne c'est des actions financières moom moo topp lu ëpp ci leader yi ba tax na duñ leen baal dara léegi nag ku mer rek dem beru ku mer beru moo tax nag dañ ne ba beru beru yu bari yooyu dina tax na nit mu benn syndicat mënutul jógu ci pour xeexal sa bopp personnellement puisque amoo daraja ji pour mën a koy xeexee parce que ñi waroon topp si ginnaaw nga am doole nga xeex am résultat kenn ku ne ut nga kër goo lekk mm. émitement bi kon ñun la très bien man loolaa jàpp ne. travailleurs yooyu ñoo fexe ba kër yi di tas chaque jour. Mm. ba pare ñu bëgg résultat amuñu résultat. Mm. ñu di am un recul. c'est ci corps yëpp nag ci service yëpp ñuy def ay recul wala nag syndicats yi amuñu njariñ. Mm. parce que syndicats yi am nañu njariñ. ci boo ko xoolee. mais amuñu njariñ ci terme de. de de de résultat. résultat ndax nit ki fu mu liggéey janvier ba décembre. Mm-hmm. war naa mën a évaluer boppam. gis na man mii kat fi ma nekkoon jóge naa mais bu fekkee ne yow janvier ba de ak secteur boo ma nekk surtout le secteur du des transports. bi ma nekk. amul benn avancée. saa boo xeexee ñu signal la. te travail syndicaliste nag boo demee grève buñ la signalee mënatoo na du ma bàyyi sama grève. te boo bàyyi sama grève moo ñàkkum signature ñoo yem kon l'état ma nga ci bërëm ñoo ñëpp nag mer. di def immédiatement rek ku mer rek beru ku mer rek beru ku berul tamit. Mhm. day mel ni bokkutoo ci. syndicat. très bien noonu man jàngat bi ma ciy def dans un premier temps. am na yeneen développement bi dem. absolument dinañ ñëwaat ci la. alors sa sa première impression dafa jëm ci daam ni mu ko waxee moom division bi la teg la dut baram tuuma euh, ci syndicat yi benn part ñoom la beneen bi aussi am na euh, lu mu ci wax euh, état yow jàngat bi ngay def muy impression première par rapport ak sunu thème tey lan moo tax syndicat wu dëmb ak syndicat wu tey ñu woon leen a mën a utal ak différence. waaw jërëjëf euh, Mohamed euh, d'abord damay rafetlu rappel historique bi. Mhm. camarade Cheikh def. bien mhm. parce que nag bu ñuy wax syndicat mun ñu bañ a jóge ci dix-huitième dix-huitième siècle. Mhm. nga xam ni euh, Angleterre effectivement ñoom ñoo yan woon flambeau bi. da leen a topp sax ba léegi parce que ñaari parti yi gën a am doole ci loolu sukkandiku ba léegi. bien comme yeneen réew yi aussi. parce que ci àdduna bi de tout temps ku am sa doole teg sa këru liggéeyukaay la. ak koo xam daa wute xarañte ak yore dooleem pour wut ku ku ku ku mu liggéeyal. Mhm. ñaar ñooñu ñoo mës a séq mbir mi. Mhm. kii day am doole teg ay entreprise am. Mhm. Euh, fokk mu am euh, main d'œuvre. ñee tamit wuti nañ seen xam-xam wala doon nañ ay ndaw soxla nañ liggéey parce que euh, c'est le travail qui produit la richesse. donc ñoom ñu daal ñëw àndandoo di liggéey ku ci nekk nag di préserver say.